rabbi sarax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafaqu xawli auzu billahi min asheytaani rajim wa inni insuha wa zuritaha min asheytaani rajim rabbi auzu bika min hamajati shayatin wa auzu bika rabbi al yaxdurun mbokku Sénégal maa ngi nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam di leen jaajëfal kenn ku nekk fa nga nekk doon sénégalais moo xam yaa ngi nekk Sénégal wala nga nekk bitim réew man Babacar Ndiaye maa ngi la fay fekk di la jox loxo di la jaajëfal Euh, dafa am coow loo xam ne temps yëpp daanaka moom lañuy ñuy coow Sénégal muy coow pétrole bi ak gaz bi euh, de doon naa ko wax depuis 2014 ne leen suñ borom ba mu sàkkee doomu aadama daf ko may loo xam ne mayu ko kenn ba pare firndeel ko ne la xadd karab naa banni aadama gis ngeen xaj ngeen jéggal ma ci wax ji tur bi moo xaw a ñàng xaj mënul dund lu weesu lu weesu fukki at ak juróom xaj mënu ko dund bu ko defee rek màgget na doxin wa da koy wane walla wow ga da koy wane buy ngexal buy mbow eh, picc mënul dund lu lu weesu ñeenti ñeenti semaine ci kaw suuf picc bu juddoo ba ñeenti semaine bu ko defee rek màgget na pittax mënul dugg mënul dund lu weesu trois mois kon doomu aadama rek la yàlla may muy dund ñu naan ay am na téeméeri at ak juróom-ñeent fukki at ci kaw suuf kon doomu aadama yàlla da ko saral da koo sargal teral ko waaye dafa mel ni doomu aadama euh, moom sagalut boppam teralul boppam àdduna juróom-ñaar àdduna juróom-ñaar euh, doomu aadama moo ci gën a doomu aadama moo ci gën a lëndëm yow yi ñu fal yow mi ñu fal def la nga doon président yow est-ce que dañ laa fal pour ngay def sa banque ay milliards est-ce que dañ laa fal ngir ngay nelaw ba yeddoor di jiital sa dox di jiital sa ndeq dañ laa fal pour askan wi milliards yi ngay denc lan la lay jëriñ imagine yow yaa ngi am juróom-ñett juróom fukki at wala yaa ngi am ñeen fukki at juróom wala juróom fukki at wala juróom benn fukki at dootoo fi dund li nga dund yow mënoo ko fii dundaat at yi nga dund mënoo koo dundaat wa boo koy jege ñu lay tàggee wala dootoo mënal sa bopp boo amul nimbalu suñu borom kon yow milliards yi nga jël loo koy doyee milliards yi ngay denc lan nga koy doyee milliards yi ngay sàcc askan wi di ko def sa banque di ko tabaxe ay kër lan lan la lay jëriñ Sénégal xoolaat leen seen bopp Macky Sall il est temps de revenir sur terre nga xam ne sénégalais yi sonn nañ. dëkk boo xam ne richesse euh, euh, richesse bi ñu am mun nañ koo dundee te duñ jar sax ñi ñi immigré yi duñ immigré ah sénégalais yi duñ sonn kenn di ñëpp di ci yëg seen bopp waaye infrastructure yu yu set amuñ ko ay hôpital amuñ ko école amuñ ko yéen ngeen jël seen compte yi di ko duy depuis temps sengoor nag ba léegi amul benn président boo ci xam boo xam ne ah ah il est audacieux mu eh, di di di yëg Sénégalais yi di xalaat Sénégalais yi ñun sonn nañ ñu amul luñ bëgg duñ dugg ci duñ duñ ñëw ci réew tubaab yi donte ñu ngi sant yàlla mais buñ amul luñ bëgg duñ ñëw ci réew tubaab yi ñuy wan a tout moment que yi nekku leen nekku leen seen dëkk à tout moment ñu wane sun bopp ndax boo waxee ñu ne la demal dellul sa dëkk ah xool leen ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Touba. ak jëmmi eh, eh, sëriñ yu baax yëpp nekk Sénégal ñi ñaan Sénégal El Hadji sëriñ Touba Baye Niass sëriñ bu baax yi nga xam ne def nañ Sénégal xeex nañu tubaab bi ba libéré ñu ngeen jëlaat tubaab yi jaay lañu jaay jaay leen ñu ah xool leen contrat yi ngeen di signé ngir yaay ngir ngir yàlla ngir yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba xool leen contrat yi ngeen di signé ah ah former leen jeunes sénégalais yi ne ci Sénégal for former leen. bu ngeen defee du ngeen soxla di jëli tubaab ci àll bi ñu ñëw di fa defar lenn wala ñu fay def dara wala chinois yi ah def leen école yu baax def leen hôpital yu baax nit ñi nañuy yëg seen bopp xale yu jigéen ñi bu ëmbee nañ di fayeeku banque nañ dem banque di fayeeku ah kii de maternité ah ku ci am doom nañ lay fay ah comme ni ko Kadhafi doon defee Kadhafi bu yemoon rek ci dëkkam kon tey jii duñ ko faat mais dafa bëggoon euh, dafa bëggoon laal Afrique lépp dimbale Afrique lépp moo tax tey ñu assassiné ko ah ah yéen nag comme yéen yéen la fa yàlla teg ah ngeen doon président ngeen doon ministre ngeen ah, ngeen doon ay député ngeen doon euh, ngeen doon euh, ay juge di leen défendre Sénégalais yi parce que président yii kenn ku ci nekk am nga sa juróom fukki at dootoo dundaat ci kaw suuf dootoo ci dundaat fanweeri at wala ñeent fukki at doo ko dund boo ko ci dundaatee rek xamal ne da ngaa am ndimbalu suñu borom kon nañ leen di fàttaliku suñu bopp. nañ leen di xam ne bis yomal xiyaam am na na leen xam ne biis penc am na nañ leen xam ne màgget am na nañ leen xam ne bis faatu am na ñu jël la takk la ba nga dëgër dugal la ci biir bàmmeel ah alal bi nga doon sàcc sénégalais yëpp ñu ñu suñ borom laaj la ko ah ah yow rakku ki Sall bi yow yow yow lan fii la Ablaye Wade jël fal doomam ngir tal ko Ablaye Wade Ablaye Wade li mu def li mu def li mu def Macky Sall jël la teg la jox la ay poste yu baax nga jël suñu alal bi di ko sàcc di ko tabaxee ay kër ak ay fu la fu la neex dem tabax kel yéen lan la franchement il est temps de parler ah les sénégalais sonn nañ te sénégalais lenn rek moo tax wàccuñ sur le terrain mooy lan mooy les les autorités la les autorités boo xam ne ku ci wax ñu jël la euh, pistolet la nga faatu ñàkk sa bakkan moo tax ku ci bëgg a wax rek sa yaay artu la wala sa sëriñ artu la. nañ leen xool suñu bopp te di fàttaliku suñu bopp te xam ne dund gi dafay jeex lu neex lu mu neex neex neex bis day ñëw ñu takk la takk say tànk jigéen bi nga ko bàyyee wala wala góor gi nga ko bàyyee yow mi di góor di sàcc jigéen bi nga koy bàyyee mu am beneen jëkkër mu ko koy mu ko mu ko koy jox ah ah wala góor yow nga bàyyi ko fi ci beneen eh, keneen nga am beneen jabar mu ko koy jox ah leen fàttali suñu bopp nañ leen di dund te di xam ne ay milliards jarul la denc. boo dee jeune am nga ñaar fukki at wala am nga euh, fukki at ak juróom ñaar fukki at aha dese na la ay juróom euh, imaginons de euh, xale nga mais yow yaa ngi am juróom fukki at wala yaa ngi am juróom benn fukki at yow dootoo dundaat ñeent fukki at wala fanweeri at ci kaw suuf lu fi jaar sàcc xoolaat leen seen bopp man daal loolu laa am doon ko wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yal na yàlla wàccee jàmm Sénégal te musal ñu ci lii gouvernement yi ñu am depuis Senghor jusqu'à